aw euh, bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Mariétou maa fa yéene ñëwaat ak yéen fii tey incha allah ci saveur planetaire ñu ñëw rek euh, àndandoo dem Maroc jël fa seen benn ñam bu siwa siw macha allah te bari façon muy tagine euh, tagine bi nag moom kàddir gi ci boppam pot bi nga xam ne moom lañ koy toggee seen potu ban boobu moom moo mooy tur bi mooy tagine ci boppam donc nga xam ne dafay bëri façon nag. <laughs> comme moom cin tout de noonu nous gi ci mu neex sa façon donc euh, inshallah bu bi lañ di mi ngi euh, euh, shoulder bi lamb shoulder moom mooy épaule d'agneau voilà épaule d'agneau moom la fas yéene def tagine bi yu graisse bi yëpp yëpp graisse voilà donc lii suñu soble bu ñu rondel la dinañ ci ñëw incha fruits secs donc euh, gis ngeen ko ni suñu prune yaa ngi nii macha allah euh, gis ngeen kii mooy euh, suñu abricot yi lii figue la mais figue bi sax fraîche bi la taxu ko wow xaaruñu mu wow koongu bu kii bi la mais mun nañ ko ci laalit incha allah mu gën a cuxum cuxumeel mbir mi léegi fii ñu ngi fi ak suñu persil plat moom mooy persil bi ñuy roofee kii persil chinois la mooy coriandre cilantro bi ñuy defee persil chinois bi kii ni gingembre la fresh ginger donc gingembre la Eh, ci souf ñu ngi fi ak suñu garlic moy laaj ak suñu touti oignon vert oignon vert bi facultatif kum neexul bu ko ci def ki suñu eh, limon confit la voilà confit de citron la incha dinañ leen ñëwal ak naka lañu koy defaree moom confit de citron bi dafay am xorom nag donc eh, nit ñi di ko bàyyee xel ñi ngi fi ak suñu molasse donc molas bi mooy ni ñu koy waxeeti sucre cana kii bi sucre cana sucre bi moom si cana sucre bi lañ defar sirop voilà sirop canne à la baal ma moo nekk ni mais ku mu neex nga jël lem lem sax la recette bi di ki man maa bëgg molaas bi moo tax pour changer tuuti euh, moom laa jël noonu donc léegi ñi ngi fi ak euh, suñu épices yi nga xam ne nag mooy gunge kàddir gi lii nii euh, ma def bismillah mbokk yi ñi ngi nii donc lii nii paprika la lii nii cannelle la cannelle mooy cinnamon lii tuuti poivre la kii xorom la kii nii seven spice la sept épices la ñu boole incha allah moom it dinañ ci ñëw ngi bés bu neexee yàlla euh, kii ni tuuti cumin la donte seven spice bi am na cumin mais dama ko ci laalaat tuuti mu gën ko relever kii nii suñu euh, safran la safran dëggantaan bee ngi nii tuuti rek lañ ciy laal euh, kii nii suñu turmeric la voilà turmeric bi mu nekk ni gis nga mooy jaunal yëf yi ñu naan ko safran indu nu ne lañ koy woowee voilà donc léegi li ñuy def dañuy ñëw léegi gis ngeen suñu gën gi yi ci ne yëpp dañuy ñëw nokkos ko huile d'olive baa ngi ne le dañuy ñëw nokkos lii ba pare moom la ñuy ñëw mariner ko suñu yàpp wi ni fii incha allah gis ngeen ko ne ak huile d'olive bi ak suñu épices yi ingrédients yi yëpp la jël boole leen fii daal di nokkos ba mu tere bien daal di laal suñu huile d'olive ñëw nag mariner ko ndawal bi ñu bàyyi ko mu toog reposer wu ba yëf dugg ko macérer bien bon ñu soog a tëj suñu cardine nag dugal suñu biir four jàpp suñu ñàmbur insha allah. waaw Bismillah Bismillah. mbokk yi gis ngeen ni ci suñu euh, euh, kii bi nokkas baa ngi nii mooy persil yi ma leen wanoon ak laaj beeg ginjeer beeg yooyu sànni naa ci gen wàllu limon bi ñu confi léegi gis nga yëpp la ñu ñëw nag ci réel gis ngeen leen ni ñoom ñëpp la ñu rek daal di ñëw fii ci suñu huile d'olive déjà rek épices yi mi ngi ko joxe bu neex jël lu ñetti kudd gis ngeen ko ni macha allah oh la mi ngi yor xet bu neex macha allah parce que bu leen fàtte seven spice bi mooy sept épices yi dafay am xorom polle ci biir am laaj en poudre am euh, coriandre am xabaxaan yooyu yëpp daf koy am ci biir mais wu macha allah voilà gis ngeen suñu marinade bi léegi nii la ñuy def rek molaas bi ku mu neex nga jël miel à la place. voilà jël sa ñaari kudd nii rek boole lépp jaxasoo gis ngeen suñu marinade bi mi ngi nii macha allah rek ci bien bon ñu ko reposer une heure deux heures de temps mu mariné. bien bon gis ngeen après nak ñu tek ko ci suñu cadre tagine bi inshallah dal di duggal ci biir four bi tej ko ay bismillah gis ngeen ni mariné nañ suñu xar mi macha allah épaule dañu lañ ko toggee kum neex nga def ko gëna tagine dafa bari façon mais ñun tay bi lañ def gis ngeen ko ni mariné nañ ko bam téré bien légui dañuy ñëw dal di jël suñu soblé yi ñu rondeloon ni rek comme ça yépp mu nekk ben ñoo am na ñoo xamantene dañuy bayyi ba affaire bi ñor ñu tegaat ko ci mais bay ñu ni ko ci réel légui rek ñu àndandoog yëf yi voilà gis ngeen ko ni gis ngeen ko ni ma ngok légui ni mu def ni dañu ñew yëkëti suñu ki rek dal di ko upp duggal ci biir four bi inshallah xaar ñu la la tuuti ci distu marinade bi voilà apa parce marinade bi gis ngeen dafa takk fi ni mën naa ko sax lenxali dal di ko ci def bismillah léegi gis ngeen suñ destu marinade bi tuuti ndox lañ ci def rek moom lañ ciy sànni ni voilà mu ngi bàyyi ko mu pénétré rek dugg ci ruq-ruqaan yi voilà gis ngeen ko nii léegi nag bismillah léegi suñu taaj nangi na nii ub nañ suñu kàddu gis ngeen ko nii mooy euh, cinu taajin bi ci biir four bi lay ñëw dugg incha allah bismillah bismillah mbokk yi ba tey ñu ngi ci suñu tajunu euh, lamb shoulder bi muy euh, épaule dañu bi li ñu gis ni ay amande la ay amande la moom laa def tuuti diwlin nii rek tekku ci pool bi pour saaf ko ni ba mu doore euh, comme ça ñu sànni ko ci suñu tajine bi di ci yàq dara beneen ñoon incha allah ñu defal leen tajine de poulet sànni ci suñu olivier ak yeneen yi koy neexal yëpp ba mu gën a ràkkaaj gis ngeen ko ni nii rek voilà léegi comme euh, dugaloon nañ suñu tagine bi ci four bi benn 30 euh, minutes yërndu ko dolliwaat nañu beneen 15 minutes muy 45 minutes incha allah après dañ koy génne jël suñu euh, fruits secs yi daal di ko étaler defar yëf yi ba mu bien daal di ko dugalaat may ko beneen 15 minutes mu ñor xom macha allah. bismillah bismillah mbokk yi gis ngeen ni suñu tagine bi macha allah après 45 minutes de cuisson mi ngi ni mbir mi daanaka jàpp na forme léegi dañuy ñëw rek incha allah. daal di jël suñu euh, fruits secs yi gis ngeen leen nii euh, daal di indi teg ci defaraat ba mu baax euh, mayaat ko beneen 15 minutes ci biir four bi incha allah ñu daal di fay suñu gaz nag. aywa bismillah mbokk yi gis ngeen nii léegi jël nañ suñu fruits secs yi teg ci jël amande bi ñu saafoon teg ci gis ngeen nii dañuy laalaat tuuti ci molasse bi rek nii ci kaw mu ngi ni mooy sirop de canne à bi. comme neex mu nga def ko limon euh, bàllil ma nga def ko <laughs> nga def ko lem muy miyal mëngoo ko day delluwaat ci fuur bi beneen 15 minutes incha ñu daal di fay feu bi daal di génne tagine aw bismillah bismillah salaamaaleykum mbokk yi mëngoog lii lañ leen indiloon tey fii ci saveur planétaire suñu tagine de lamb shoulder baa ngi nii muy euh, épaule daño bi macha allah gis ngeen ak suñu fruit sec yi tey ñu jël ci prune ak euh, suñu abricot yi jëlaale féeg yi sànni ko ceeg suñu tuuti amande ak euh, limon citron bi nga xam ne confi ko ñoom ngeen di séddale macha allah lii la ngeen indiloon fii ci Saveurs planetaire vidéo complet bi ngeen visité ñu ci suñu page YouTube salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu